waaye jëpp yitte jumale te ju ne na nga xam ne lu ma bokk ak ñëpp lay doon te maa ciy gën a néew le kon sëriñ bi foofu la ne ndax yàlla def na man seera laa ci ñi fi jëkk nekkoon fi di président bi fi bàyyi ko nekk na fi ba jóge fi sëriñ bi mës a dégg soxla su boppam lu mu ko wax rek di jëm ci taalibe yi la yow mii fi toog itam man nga ko tàmbalee ci bis bii nga xam nga ko njëkk gis xam naa ne ba sama ndaay jeex doo dégg yite boppam